Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel les événements. kii bi ñu santee borom bi subhanahu wa di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér di santat sunu borom bu baakha baax ci dajale bi mu ñu dajale fi ñu ñew di layante biir ci li nga xamne mom lañ bokk muy rew mi ndax ku ne xamna ni tay ji mo nekkon bis bi nga xamne nekon mo nekkon sunu rentrée politique moy bis bi ñuy dugg ci biir langue bi muy congrès bo xamne sumboon nañ ko waroon ko def tey waaye nag euh, saa su nekk ñun ADS dafa am ni ñuy doxee ndax dañ ne alliance pour le développement du Sénégal slogan bi nekk ànd defar Sénégal kon bu fekkee ni loolu lañ ko wax kon il faut ñu doxee comme ni ñuy waxee ndax kenn ku si nekk li fi xew ñaari fan yi nga xam ne moom si département bi muy Mbàkke ba Touba di masawu nag suñuy militant di maskawu képp koo xam ne na xaar bis bi di leen wax ni nit ki lépp loo xam bëgg na ci jàmm njëkk na fi jàmm mujj ndax déposé nañ comme ni ko sunuy naataango yi defee waaye dem jaar nañ fépp foo xam ne war nañ fa jaar enquête morale yi nga xam ne ñi ngi ko war a def yëpp def nañ ko signature yi war lépp def nañ ko waaye situation dëkk bi moo tax ñu ngi ñu rejeté annulé congrès bi ñu doon def ndax bu dul dara ay sénégalais lañ bu dul dara ay taalibe lañ waaye bu dul dara it war nañoo bokk si ñuy defar réew mi kon bu fekkee ni dañoo waaj ngir def suñu kongre ngir dagaan baatu askan wi nga xam ne moo nekk suñu langue bis bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi koy dugg ci biir politique bi ñu dem ba gis ni dëkk bi jaxasoo na ñii ñii xeex ñii di yàq te ay kilifa nekk fii ci dëkk bi muy Sëriñ Muntaxa ak xalifa Baay Faal nga xam ne ñoom ñooy suñuy buntu si diine ñu lañu suñu borom booleel kon war nañ leen a sédd cër ADS warul def loo xam ne bépp kilifa bu nekk ci réew mi da koy seexlu baa di ko baa di ko mettitlu beneen bi it ñun dañoo fonk suñuy nit fonk suñuy militant ndax tey bu fekkoon ni dem nañ fa tey jëyi am ñun ñu dugal ñu suñuy oto ak suñuy sécurité yóbbu ñu waaye militant yi nga xam ne jugoon nañ ak gox goxaat yi ñoom nan la ñuy def kon lool du ngor te militant wu ADS ñu fonk seen bopp lañ ñu fonk seeni réew lañ waaye itam ñu fong seen seen i kilifa dëkk lañ seen kilifay réew kon du ñu jël benn engagement si yàq wa ilaa si benn gaañu gaañu boo dina dina baaw ko ci benn nit koo xam ne ñëwoon na ngir bokk ci parti bi lii moo sabab ñu annulé congrès bi ba jëmmi jamono. ndaxte mënoon nañu wax nii dañ koy def waaye situation fii ñu toll ak dëkk bii nga xam ne mooy Touba nekk deuxième ville Sénégal Serigne Touba li mu liggéeyal askanu senegal waruñu ko fayee xeex ak yàq ndax yar la jàngale defar la jàngale waaye tamit wekk sa askan la jàngale te bépp tarixa bu nekk ci réew mi it lii nga woote ba ci jàngo yi lii lañ woote te ñooñu ñooy ñi xam ne ñoo ŋànk Sénégal li ñu war a wax wax nañ ko waye nak ndax ñun li ñu war def def nañ ko kon nit ku bax day am kilifa arab dafa wax ni khubul watani min al iman man la yuhibbu watanahu la yakunu sarifan sopp sa rew bokk na ci ngeum yàlla kep ku sopp réewam nak nek ku tedd du tedd mukk te sopp sa rew bokk na ci lépp luy developer rew nga dugal sa loxo ñu bañ ko teg ci wàllum xeet ak waaso ak wàllum parparloo waaye ñu teg ko si maandute waaye dama yaakaar ni képp ku am programme dinga tal leneen lu dul xeex ak jàppante ndax gis nañ ni région bu nekk département bu nekk nit ñi bàyyeekoo nañ fa ñëw ngir waajal waxtu tay bi ba dëkk Afrique yi loo ci mën a dépenser jàmm jar na lépp kon lii lañ ànd ak waa ADS muy comité directeur bi nga xam ne ADS mooy mouvement bo xamné lenn moko ko muy nan lay def ba Sénégal am changement ci li fi nek ndax ñaari mouvement yi bolé sen doole la muy mouvement pour la renaissance du Sénégal muy MRS ak mouvement jàppalante ak askanu Sénégal soxna umma jigen nek présidente MRS ñun ñii suñ borom defoon ñu jiitu ci bopp jàppalante askanu senegal ñu xam ne ñoom réew mi rek moo leen tax a jug ñun ñu xam ne ñu nit rek moo ñu jug ñu boole suñuy doole lëkkaloo ko dem seeti nitu diine yi seeti nitu daara yi waaye itam seeti tamit nit Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi nga xam ne ngir xam seeni jafe-jafe ndax bala ngaa liggéeyal nit dangay xam lan mooy jafe-jafe bi nga xam ne wàcc nañ ci àll bi jamono bi nit ñi nekk am góor gi indil ngóor si ñii di saaga ñii di yàq ñii di fayu boobu ADS mi ngi ci àll bi di xool lan mooy jafe-jafe askan wi ngir mu taxaw ci bi ñu demee ba jàngat kën yi am na dëkk yoo xam ne fii ci senegal courant moom dañ koy dégg rek mais mosuñu ko gis ñu demaat ba gis ni am na ay dëkk fii ci senegal pour ñu am dispensaire dañ koy dégg rek waaye duñ ko gis ñu dem ba gis ni entreprise ak société yu bëri senegal tëj nañ leen te biñ leen tëjee xañ nañ seen seen ak seen yaleef waaye tamit yokku nañ taux de chômage bi ndax ñooñu fa lañ doon uti ji ñu dem ba jàngat sani fépp foo dem ci àdduna bi imaamu jàkke yi ñoo lay dimbali waaye dem nañ ba gis ni ñun suñuy imaamu jàkk ñoo ñu gën a pauvre ci Afrique ñu dem ba jàngat que ni sëriñu daara yi amul benn cër goo xam ne jox nañ leen ko fii si réew mi ndax bëri na sëriñ daara yoo xam ne ñu ngi fi institution bi tëdd te dañ leen tuumaal tëj leen fa ndax lan amuñu doole te kenn bool leen ci askan bi biñ demee ba gis loolu nag ñu ne lan mooy programme ADS ñu ne kon nag nañ boole suñuy doole ndax nit waroo xëy di laaj lan la la sa réew defal ndax bu dee xam-xam bi réew mee ko jox bu dee judd bi réew mee la ko jox bu dee alal bi réew moo ko jox waaye kon nag lan nga war a ameel sa réew la nit ki war a laaj ADS nag ne kon nag pare na pour taxawu askanam si diggante boobu gis nañ Sénégal wàllum santé bokk na ci li gën a sooxe ci Sénégal ndax médecin yi nga xam ne ñooy faj askan bi dañuy am problème mu luyaas am problème mu dund bëgg faj askanu senegal mënta nekk. ñun nag waa ADS diggante ñetti at li jiitu ñuy def coalition ADS bi faj nañ fi pride sept cent soixante quinze mille six cent personnes soixante mille six cent personnes yoo xam ne dugg nañ ci àll bi faj leen ñii dañoo tàggoon ak seen sago ay sénégalais lañ bedd leen ñii dañ doon jëfandikoo lu bon ñii dañ doon jaay seen yaram ñii dañoo feebaroon ñii amuñu moyen bu ñu fajoo ñu boddi leen bi ñuy faj bu ñu xoolee ñëpp dañoo gis ni soixante quinze mille six cent personnes moom jaar na fii ñu ñu faj leen te yaakaar naa ni tey jii boo génneen def micro trottoir di nga gis ni loolu moom ku ne teg na si bët bëtam te loolu rek doy na programme ndax al madrasatu xablal masjid daara mooy jiitu jàkka waaye avant daara nit kon ñun ADS day defar nit defar jikkoy nit ba noppi nag doog a nit jox ko métier xamal ko nan lay def ba bëgg réewam ak nan lay def ba jariñ réewam neuf mille yoo xam ne defal nañ leen ay formation jàppale leen créer leen ay petite entreprise ba tey coono gu metti bu ñu doon teg jigéenu àll bi ADS ñëw na taxaw si ba lu si bëri dañ na ADS forme nañ ay nit si ay métier ci ay góor ba ñoom ñu jiite entreprise bay jariñ seen bopp di jariñ seen askan depuis 1960 ba léegi kan ngeen mus dégg ci réew mi muy xëccoo réew mi def lu mel ni amul te yaakaaruñu mu am ba mu kon réew moo dem ci àdduna bi baykat yi ñoo ñëpp ñoo ëpp alal waaye suñuy baykatu réew ñoo ñu gina a pauvre yaakaar nañ ni tey nit pour nga nekk ay milliards faaw nga nekk politicien politique du métier uti leen métier lii nga gis mu xew démb Mbàkke ñàkk am métier moo ko waral ndax bu fekkoon ni ñoom bëgg nañu réew mi yaakaar naa ni lii xew démb du xew olof nag dafa wax ni gasum ñaam bi bu fa yooru goj amee reen nga taxulaa jug jox leen réew mi mu jaral la paaka yi jaas yeeg jug ak yàq jiite askan bi taxulaa jug am na lu si laxasu ñoom ñii nga gis ñuy xëccoo Sénégal ñëpp amul kenn koo si mun a yëkkati na muy créer benn emploi amul kon nit bu fekkee ni da bëgg réew jiital la dangay amal sa askan njariñ dangay ngay fexe ñu am jikko yu baax dangay ngay ñu ñu wet seeni magum réew waaye dangay ngay fexe tamit nitu diine nitu daara ñu jox leen cër bu ñu moom dangay ngay fexe tamit jigéen ñi tamit ñu bañ di leen torturer waaye da ngay fexe tamit créer ay emploi ba jeunes yi mën a gis seen bopp dem wàcc naa ci terrain bi ay xale yoo xam ne 13 ans 14 ans di dóorante ko dàqante yëguñu sa lu xew dañ leen a jug leen nag ñu jug xoola tey ay nit ñoo xam ne dañoo créer seen alal ba créer seen société di jël ay nit di leen fay ñu toj ko taal ko yàqate ko loolu ndax loolu la Serigne Touba bàyyi woon ndax loolu la Serigne Hadji Malick Sy bàyyi woon maam Limaamu Laay Baay Ñas ndax Abbé Jacques fan yi weesu wootewul jàmm ci réew mi kon nañ xam ni ñii ngeen gis ñëpp kenn bëggu ci réew mi réew moo xam ne déggoo kenn muy xeex ndax dund gi seer na déggoo kenn muy xeex ndax santé bi metti na déggoo kenn muy xeex ndax ñu ngi bul xataal suñu imaam suñu njiit yi waaye xeex ngir seen intérêt bopp rek kon lii moom la ñuy li ci des dinañ bàyyi suñuy naataango journaliste yi ñoom ñu jël seen wàll si li nga xam ne ñoom seen liggéey la. waaw ndax sëñ Xaadim day dem ànd ak. Euh, pouvoir bi wala day dem ànd ak opposition bi loolu yaakaar naa ni bu ngeen gisee ni ñuy doxee sax war ngeen xam ni jëf ji tontu na question bi Serigne Khadim Ndiaye askanam la àndal àndul pouvoir àndul opposition képp koo xam ne gis na ni am na yërmande si askan bi te di leen jariñ boo ñëwee te sa loxo set wicc nag. boo ñëwee mu ànd ak yow. xam naa dernière question jamono ji déggoon nañ fi Cour des comptes ay nit ñoo xam ne nii euh, euh, tuum wax nañ ne ñoom dañoo laam-laame lu réew mi am ñu ko def ban message nga ci am ak lan ngay xaar ci li nga xam moo di nguur gi nguuru Sénégal. waaw xam nga euh, dafa am loo xam ne man dama koy faral di wax Sénégal dañ leen orienté ci débat. waaye tàggatuñ leen pour nan lañuy def ba liggéey ba defar seen réew te boo gisee ADS depuis coow li fi am lépp déggoo ñu wax si dafa am système boo xam dafa am si réew mi foog système boobu changé wuñ ko lii di fi jug l'homme qu'il faut à la place qu'il faut gis nga nit da ngay fexe ba li nga koy dénk mu maîtriser ko waaye koo xam ne mbay la xam nga dénk ko santé jël koo xam ne santé la xam nga dénk ko napp gi yaakaar naa ni ñun du ñu amal affaire ak euh, kiñ ko dénk waaye ñun ki ñu fal la ñuy amal affaire ndax ñun faluñu ministre yi ñun président bi lañ fal kon président moo xool ku ko neex mu tànn ko kon ñun li ñuy wax daal mooy lépp loo xam ne dina war a développer Sénégal nañ ko teg ci table bi leeroo ko ba mu leer nañ ñu bañ a def fat doom làq doom duma doom déedéet nañ yemale ndax loi kiñ ko dénk moom la daan war a gën a teg ci kawam ke ke ñi jiite kon daal côté boobu liñ ciy leeral mooy ngir loolu mën a changer mooy askan bi nañu leen jël ñoom ñëpp beddi leen na le fal ADS beneen biit si li nga xam ne moom lañuy wax askanu senegal ñu leen di wax ni congrès bi nga xam ne moom lañ doon jàpp juguñu si te du yàgg dara buñ demee ba gis ni dëkk bi dal na si kàttanu yàlla ñun dinañ ko taxawal te vingt 2024 bootuwuma ci ginnaaw kenn askanu senegal laa bootu ci seen ginnaaw nit diine yi diine manière générale moo xam jàngo yi moo xam musulman yi ak ku mu mun a doon te nekk sénégalais te bëgg Sénégal développé wu ñu leen di xamal ne ñun duñu ay politiciens ñun dañoo am métier am suñuy diplôme am suñuy société créer ay emploi waaye tamit di wàcc jël nag suñu alal di ko bokk askanu senegal Sénégal kenn ku si nekk war nga mun a roy si ñi fi nekk ndax yaakaar naa ni bu fekkoon ni réew mi bëgg nañ ko ki jiite dafa war a am yërmande si ñamu jiite ña ñu jiite it ñu nangu ñu jiite leen ñaari bu fekkee ni am na kiy jiite si maandute ak si doyal ak si yamale ki ñu jiite it mu nangu ñu jiite ko si dëgg ñaar yi mooy tax askan bi mën a am jàmm ndax tey jii boo xoolee handicapés yi les handicapés nekk fii si senegal nekk 6 pour cent si réew mi ñu bedd leen. ba kenn ci ñoom àqam ak yelleefam mënu ko jot ci réew mi am na ñoo xam ne tey ñi ngi fii ci réew mi yaakaar naa ni am na dëkk bu ñuy wax saxoor boo ñëwee ba Diouroup da ngay wàcc 19 kilomètres saret moo la fay yóbbu wane nañ ko jamono jee weesu seen pont bi dafa dagg nit ñi di fa dee jigéen bu waree accoucher saret lañ koy tegal 19 kilomètres di ko dawal pour mu mën a am doom yàggul dara chef de village am jarbaatam bi mu amee doom bi muy def retour ci la wàcc liggéey dëkk boobu nekk fii senegal mu mel na ñun amuñu ay njiit amuñu ay bonne volonté ñoo xam ne denc ngeen seen alal ngi jàppale seen askan ñun nag ADS ñu porté combat boobu dem nañ ngir jàppale askan bi waaye dafa mel ne dañ see teg tànk kon ñu ngi lancé message askanu senegal di leen wax ni moo xam médecin yi la moo xam transporteurs yi la moo xam étudiants yi nga xam ne tey kenn gisul seen bopp si réew mi njàng bi dara jagu si ak waa science yi nga xam ne ñoo yoroon suñu wàllum mbalit yi nga xam ne ka wàllum set bi kenn fayu leen seeni seen i alal ak ak yelleef chaque jour médecins yi grève tey enseignants yi grève suba ñee grève ñoom ñu yor seeni i 4-4 di nappaaje askan bi fii ak. ci cinq mois dinañ yor seen i alal gu weex tàll dugg ci askan di leen jënd waaye bu leen nangu kenn jënd leen bu leen nangu kenn jënd leen na xam ni li fi nekkoon na fi jóge waaye nag ñun xeexloowuñ kenn saagaloowuñ kenn xastewuñ kenn dañ leen di woo ci ànd bennoo liggéey askanu senegal kon ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp presse bi nga xam ne yéen ay jàmbaar ngeen dañ leen war a jox seeni cër dañ leen war a jox seen cër ndax lépp loo xam ne nit ñi xam nañ ko àgg na fa yéen a koy jàllale waaye ñu leen di ñaan yéen it am na si mbir yoo xam ne bu leen ko di wane ndax bokk na si liy révolté loo xale yi te ñoom xamuñu exact lu xew te loolu it nañ ko segg ñun ñëpp ñu ñaan it dëkk bi dal di ñaan xalifa yi ñu dolli ñu ñaanal jàngo yi ñu dolli ñu ñaanal wax waa Sénégal di tàllal seen loxo di wax ni 2024 ñu ànd si kàttanu yàlla li àndandoo liggéeyandoo gañandoo liggéey réew mi ba képp koo xam ne nekk na Sénégal mu mën a gis boppam kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Anza TV Gaulen Gaungen, Bosco ngeen bés cloche membre en temps réel tous les événements